ahousubilah mina sheytaan rajim bisimilah rahmaan rahim bat suñu cheikh mbokk taalibe yi saaru baax baax leen jox seen wàccuwaay di fas yéene leen amal rek benn émission ci plateau Wilaya TV ñu war cee waxtaane wax dëgg fa yàlla ay benn thème bu am solo seqoog suñuy naataago di suñuy jëwrin ñu fare ca Wilaya Ikaad ñu war cee waxtaane tamit thème bu ama am solo mu doon di l'éveil de la jeunesse sénégalaise sur la science l'enseignement technique et la formation professionnelle loolu la mbokk taalibe tey bëgg a élaborer ñu jëm cee waxtaan mu tënku ci yee ndaw ñi ci ci science ak enseignement technique ak formation professionnelle nan la ñuy def ba bëgg ko nan la ñuy def ba ba jàng bi gën a yaatu ñu seex ko ak suñu jëwriñ suñu Ousmane ak Soxna Khady ñoom ñoo ñu war a defal tey waxtaan bu am solo woowu kon su ko defee dañ leen di jox ñu présenté wu rek euh, wax daara buñ jóge ak lañ ak euh, seen i ñu doog dugg ci débat bu baax baax kon soxna Xadi bisimilah kàddu gaa ngi noonu. bisimilah. auzu billah bisimilah. inna waliyallah wa ma tawfiq illa billah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar mbokki taalibe man nag maa ngi tudd soxna Xadi euh, jiite commission sociale wilaya ICAT. Euh, xam naa Seydina Omar foofu la ñu tënk kàddu yi rek ba ñu dugg ci biir ñu doog a xuusal waxtaan ah sunu xarit yi jërëjëf ci présentation boobu noonu mu bokk si xam ne mooy président social wilaya ECAT di jëw génn ci daara ji kaw jooju di université kon dañuy jox suñu Ousmane moom tamit mu présenté wax fa mu féete ñu doog a wéyal émission kon aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani inni auzu bika wa zurriyyati rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yaxduruun asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Seydina Omar ñu ngi leen di siyaar siyaar soxna Xadi bu baax a baax euh, di rafetlu bu baax a baax jeetaay bi ne ñun la euh, euh, Ousmane Ba nekk wilaya UCAD yor seen communication bokk section bu Dakar te nag ñu ñëwoon fii di màggal mu Muharram magal ba nga xamante ne moom looy moom moom mooy magal Serigne Touba ba xamante ne moo ko digaloon Serigne Modou Moustapha mu koy amale ndax mooy bés ba nga xamante ne moom la Serigne Touba ñibbi aljanna ñu koy màggal mu tombeel tey le 28 le 28 incha allah ñu fas yéene koo taxawee bu baax a baax li bokk ci liggéey ba nga xamante ne xëy na moom la ñu war a taxawee mu nekkoon ay thèmes yoo xamante ne war nañ koo mën a essencé ak suñu mbokku taalibe ak euh, mbokku jullit yëpp daal. mu nekk premier thème bi bi nga xamante ne moom la ñuy présenté mu di euh, l'éveil de la jeunesse sénégalaise vers la science deux points l'enseignement technique et la formation professionnelle wax ko sekk ak suñu naataangoo di soxna Khady Ndiaye ak Seyna Omar Yaate kon foofu la ñuy wàccee kàddu yi di naan Seyna Omar jërëjëf ci kii bi mën nañoo commencé jërëjëf. jërëjëf sëñ Ousmane ci présentation ak soxna Khady. ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax kon daal dañuy dugg directement ci li nga xam ne moom moom mooy débat bi ñu war yee gi ñu war a yee ndaw ñi ci njàngum science ak technique ak professionnel muy branche boo xam ne mu am solo solo la ci dundub doomu aadama ci li nga xam ne moo tax mooy. Euh, war ko waxtaanee dundu doomu aadama ak waxtaan wala dëgg yàlla ci développement réew kon loolu da loo xam ne lu am am am solo kon dañuy dugg rek ci première question bi ñu war cee waxtaan ak euh, Soxna Khady maanaam bu nee science dañu bëgg xam science dëgg-dëgg lan lan mooy science ñu jëm noo defal benn définition science bu bu bu yem rek daal di jàll. ok jërëjëf Seydina Omar maa ngi lay jaajëfalaat bu baax ci question bi nga xam ne posé nga ma ko mu neex a tontu loolu macha allah. kon bu ñu duggee ci thème bi comme niñ leen ko waxee l'éveil de la jeunesse sénégalaise sur la science en euh, l'enseignement et technique et de la formation professionnelle bu ñu ñëwee ci définition science mooy c'est c'est l'ensemble des connaissances généralement autrement di savoir-faire donner les connaissances euh, l'expérience habituelle maanaam mooy l'ensemble bu li nga xam ne mooy lu ëmb lépp li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy connaissance waaw moom lañ leen nar a firil ci thème bi maanaam ay xeetu xam-xam la yoo xam ne euh, ndaw lu nekk war na ko bàyyi xel muy science science nag bëri na yi nga xam ne ay domaines yi nga xam ne moom la composé euh, mën nañ cee wax euh, l'ensemble muy biologie wala et cetera yeneen ak yeneen kon nag li nga xam ne mooy science dañoo bëgg ndaw ñi gën a xëppiwaat seeni bët bàyyi ko waat xel looloo tax ñu ñëw indil leen définition bi pour que Euh, ndaw ñi ñu leen ko définir pour ñoom ñu gën cee bàyyi xel kon Seydina Omar foofu laa lay delloo kaat gi ba nga joxaan moom la jërëjëf soxna Khady ci réponse am solo boobu mu def ci science wax dëgg yàlla muy lu lu am am solo loo xam ne xale yi bu ko dégg la nga xam dëgg-dëgg maanaam lan mooy lan lan lan mooy solo science ndax xeetu xam-xam yëpp la la dajale comme ni ko soxna soxna Xadi waxee mooy loo xam ne lu lu lu tënkoo tënk la kon euh, laaj ñuy laaj si Ousmane rek mooy maanaam science njëriñu science dëgg avantage yi nga xam ne science am na ko ci buntu doomu aadama ak ci développement réew maanam lan la suñ ko mënee tënkal ci ay kàddu te Ousmane bisimilah. waaw jërëjëf Seydina Omar ci laaj boobu noonu maanaam mooy lan mooy njëriñu science ci doomu aadama te mën nañ ne science moom daanaka mooy lépp ci doomu aadama parce que mooy xam-xam ba nga xamante ne xam-xam bu yaatu la bu doon xam-xam tamit boo xamante ne c'est pratiqué boo xamante ne képp ku mu nekk si yow daanaka xam nga importance benn ci nga xamante ne ci ci population bi ndax lépp connaissance yi nga xamante ne nii connaissance yi nga xamante ne nii euh, ñooy noo lay baax nga mën a exercer ci dëkk bi nga dëkk bokk ci ñi xamante ne ñooy développer réew mi ndax science maam xam-xam bu yaatu la boo xamante ne euh, muy ci pratique wàllum technique bi ak euh, compétence yoo xamante ne nit ki da koy am mun koo jëriñ di ko pratiquer xamante ne mun ta du xaar kenn ci leen loolu mooy science xam gën naa yaat foofu noonu ndax dugg na fépp science tamit mun nañ ko wax ne dafa yaatu ndax am na science boo xamante ne wàllum politique lay wax am science boo xamante ne day jëm ci wàllum éducation et technologie bi ak développement bi et tout ça am beneen science boo xamante ne la boobu nag mooy xam-xam bi nga xamante ne mooy bi wër am na aussi science expérimental mooy science ba nga xamante ne xëy na euh, ça se base sur des expériences yoo xamante ne comme physiciens yi nu koy defee moom science donc yaatu na Seydina Omar doon tamit xam-xam bu yaatu boo xamante ne xam-xam bu wér la aussi mooy waral nit ki tamit am benn capacité de réflexion bi mën a xalaat lii xamante ne day doxal ak lépp lu ci aju am di réfléchir vite aussi loolu lépp daa bokk ci science mu doon tamit lu am solo lool waaw science boobu noonu kon na xam naa foof la ñuy teewlu rek sëñ naa man ci wàllum science. loolu rek sëñ Ousmane maam euh, science ndax dëkk boo xam ne doxewul science. ndax développement am dina yomb dëkk bu doxul science ndax développement bi dëgg-dëgg dina yomb te bëggoon nañ dëkk buy. dëkk bu doxewul science. waaw est waa que naa Seydina Omar comme question boobu de moom dañ ci sawar lool dëkk ba nga xamante ne moom amul science moom mën nañu duñ fa xaar ab développement ndax développement science moom mën nañu c'est le moteur di développement d'un pays maanaam buñ bëgg wax loolu mooy science moo mën a doxal ab réew ndax mooy xam-xam bu wér bi nga xamante nit ki bu ko amee. daanaka côté euh, dafa yaatu mën naa néew côté industrie ak côté commerce ak côté scientifiquement tamit te aussi expérience yi mbax ndem même bii mbas mbas bi nga xamante ne moo sonal dëkk bi bu doon science bi muy fi bu baax a baax xëy na kon war nañ mën am am vaccin yoo xamante ne yu mucc aybel yoo xamante ne ci réew mi lañ koy doxalee donc ñuy ñaax ñaax jeunesse su Sénégal ak réew mi bu baax a baax ñu orienté wu ci science ndax science mooy la nga xamante ne moo mën a doxal dëkk mooy mën a participer bu baax a baax ci développement dëkk ndax dëkk boo xamante ne amul science daanaka mën nañu xam-xam amu fa te aussi mooy tax nit ñi gën a mën a réfléchir bu baax a baax am xam-xam yu dëgër yu wér yoo xamante ne mën nañ ko expérimente nit ñi di ko di ko gis di ko jëfe di ko doxee di ko waxe kon science doon na xam-xam bu am solo te du mun a doxal ab réew la bu baax a baax Euh, jërëjëf suñu Ousmane ci leeral yu am solo yooyu noonu kon dañuy daal di euh, kii sunu xarit rek moom tamit ñu laaj ko benn question maanaam ndax njàngum science si école kaw yi rek lañ ko war a tàmbale wala ci école primaire yi war nañ faa mën a jàngale science bu baax a baax ndax euh, xale yi gën koo miin question bi daal loolu waaw science buñ koy jàngalee mën nañ koo jàngalee en bas parce que bu ñuy wax science li nga xam ne mooy secteur primaire fi nga xam ne fa la xale ba di commencé dalub jàng école. foofu lañ ko war a former ci science maanaam wàllum mathématique wàllum mm, SVT yooyu noonu yooyu yëpp foofu la ko war a tënkoo jàng ko ba xam ko léegi nag loolu ngir moom xale bi mu mën cee bàyyi xel ba ba booba mu gën koo bëggal boppam il fallait ko moom ci boppam ñi nga xam ne ñoo koy jàngal ñu gën ko koo bëgguloo mu gën koo bàyyi xel. ndax dañuy gis ne ci enseignement yi euh, ñi nga xam ne ñooy enseignants yi dañuy xaw a banaliser loolu bu baax a baax ba tax na ñi nga xam ne mooy xale yi dañuy xaw a liquider li nga xam ne science ñun nag nekkuñ ne dañuy favoriser science rek moo tax ñu ñëw waxtaanee ko. dañoo gis ne su suñu réew Sénégal fi jamono toll nii gis nañ ne euh, science bi daf fee xaw a wàcc bu baax a baax ndax euh, techniciens yi ñu soxla par rapport ak suñu développement réew dañoo gis ne euh, loolu yëpp mënuñ ko am fu jamono toll nii ndax booy xool en parlant du coronavirus mën nañoo joxe exemple yeneen réew ñi ñu ngi ñuy indil ay vaccin te ñun xoolal rek depuis boobu ba tey munuñoo fexe ba programme un vaccin buñ buñ mën a defee ànd ko suñu suñu mbokk sénégalais yi. kon il fallait que ñun ñuy taxaw seetlu ci loolu daal di yee ndaw ñi ñu gën a joxaat gëdd science ndax science moom moo yor développement réew euh, xale nag boo ko tegtee boo ko tegtalee ci ci ndaw jëmale ko ci loolu rek moom bu demee loolu lay màggaale kon nag dañ leen cee war a xirtal bàyyi loo leen ci xel parce que da ngay jël exemple gone gi nga xam ne am na BFEM euh, suñ ko orienté lii nga xam ne mooy S danaan ah duma fa dem ndax foofu dafa saf. maanaam dafay mel ne lu gëmul boppam ci foofu mu jëm te dafa war a gëm boppam ne xam ne moom bis bu demee foofu lépp lu mu fay prouver rek yàlla daf ko ci dimbale parce que science euh, nekkul lu loo xam ne lu jafe la wala yooyu ndax booy xool ci wàllum recrutement bu ñu demee ba nga xam ne am nga sa diplôme yooyu ñoom lañuy ñuy gën a favoriser ngir jër leen par rapport ak ñeneen yi nga xam ne ñoo nekk système littéraire kon nag war nañ cee bàyyi xel gën cee naxtaat ñi nga xam ne mooy xale yi ndaw ñi ñu gën koo bàyyi xel ndax euh, science moom mooy def développement réew te gis nañ secteur bu nekk mu ngi nekk en faillite par rapport suñuy ndaw ñi nga xam ne ñu ngi koy xaw a gis nañ topp nañ li nga xam ne mooy secteur littéraire bi ba favoriser ko ndax ñoom ñaar ñëpp mën a ànd de duñ jël ñun science rek favoriser ko de ñoom ñaan ñëpp ànd parce que am na domaine booy toll wala nga dem ci beneen réew di fa di fa defi leneen. tant que utiliser woo li secteur littéraire lu mel ni anglais mën nañ koo wax boo génnee Sénégal génn feneen tant que déggu anglais doo mën a communiquer ak ñoom il fale ko kon ñu boole ko ñoom ñaar ñu cumuler leen ñu bokk ñoom ñaar doon benn kon dañuy gën a xiirtal rek ci ñi nga xam ne ñoo yor ci domaine boobu ñu bàyyiloo ndaw ñi ñu gën a xiir ci li nga xam ne mooy science sinon ñu toogee suñu dëkk dina fayit à propos dañuy manqué ay scientifique waaw te jamono ji ñu toll rek wane na ko kon nag nañ ci gën a xërtawaat ndaw ñi parce que booy xool euh, bu yàggul rek mën nañ fee joxe exemple à de 12 ans mu ngi créé benn appareil boo xam ne ci affaire météo la hmm, daanaka xoolal loolu rek ci l'âge 12 ans la créé lool kooku bu demee ba gën a développé nan na mën a kiyee kon da lay waral ne xale yi bëgg nañ mais dañoo gisul ku leen gunge. ci loolu ci loolu laay dugal tax mooy ci talent yi nga xam ne bari nañ Sénégal ci wàllum science. Mhm. ndax euh, yaa ngi koy wax dañuy gis fan yi si télé yi ay xale yoo xam ne ñi di defar ay télescope ñii di defar ay matraque xale yoo xam ne ay 12 ans la am. Mhm. ñoo amaguñ sax befet. maanaam mhm. produit yooyu noonu Sénégal Sénégal am lan moo tax mënuñ koo mënuñ koo favoriser maanaam euh, état bi moo leen jàppalewul wala waajur yi la wala lan moo tax daal mën mën leen pousser. ba ñoom ñu mën a di defaral seen bopp di yëkkati seen bopp bi di euh, euh, loolu lu koy waral mooy état bi dafa jéemut jaxusoo ak ndaw yi ndax bu ñu waxee ministère de la jeunesse. Euh, dañuy gis ne ci ay affaire caravane wala leneen ak leneen ci loolu la ñuy toppatoo bu ñu dugg ci biir ndaw ji ngir mën a waxtaan ak ñoom lan lañ leen lan mooy seeni utilité ñu ànd ko ñoom ngir lii la ndax da xool gone gu ci âge boobu. daal di créer benn appareil boo xam ne euh, terme de astro loo xam ne jëmale ko ci météo la kon da dañuy xam ne ay pur scientifique ñu ngi ko yor ci suñu réew mais moyens yu ñu yu ñuy utiliser ngir mën a kii loolu lañ amul kon nag il fallait que ñun ñu ñun ñu jël ñun en tant que jeune mën a wax ak ñoom ñu gën leen a bàyyi xel xam ne ñoom ci seen jëmmu bopp yàlla may na leen xam-xam boo xam ne mën nañ koo utiliser mais dañoo gisul ku leen ci gunge kon nag il est temps ñoom ñu jaar ci jàpp gunge leen ndax ñu mën a am ay scientifique ndax fii jamono toll nii scientifique yu ñu am doyul gëm waxuñ ne ñaaku fi de mais li fi am moo doyul moo tax ñu taxaw seetlu si ngir mën cee waxtaanee Seyna Omar. jërëjëf jërëjëf soxna Khady ci leeral boobu noonu ci question boobu tamit la dugal si sëñ Ousmane dañoo gis tamit ci ndaw ñi ba léegi maanaam ku ñu ci gis xale bu teel a bëgg science rek maanaam teel di créer dara dañ lay jël yóbbu la bitim réew pour nga jànge maanaam dañoo xamul ndax Sénégal moo amul école yoo xam ne war nañoo mën a jàngale science comme ni waree bañ génn fii wala nit ñi ñoo am complexe dem di génn bitim réew di di jàng science ak yi demee noonu euh, loolu daal lañ bëggoon laaj. waaw jërëjëf Seydina Omar ci question bu am solo boobu noonu xëy na loolu moom tamit dinañ sawar pour addu ci ndax euh, euh, science comme niñ ko waxee rek mu doon lu am solo compétence ak xam-xam bu wér boo xamante ne basé wul sur le verbe croire non loo xamante ne duñu gëm la te toujours moom ci réalité rek lay woon science. waaw lu wér la donc donc nag Sénégal euh, li nga wax noonu gis nañ gis nañ gis nañ gis nañ ko ndax di ci ëpp dañuy génnee seen doom yi pour ñu dem bitim réew di jàngi wàllum science te aussi bu ñu fàtte ni Sénégal am na université boo xamante ne bokk na ci université ji ci yi gën a naw ci Afrique ci wàllum science mooy université Anta Diop bu Dakar day former ay cadre scientifique yoo xamante ne ñu fii di dëkk bi foofu lañ ñu amee seen diplôme donc dañuy ñëw pour yee askanu Sénégal njëkkee ci suñu bopp nag bu baax a baax mooy ci wàllum science te it ñu gëm science ba nga xamante ne xëy na mu ngi fii ci Sénégal ñu war koo gëm bu baax a baax ndax gëm nañ ne ñun mën nañ fee jàngee am xam-xam ci science bu baax a baax ndax am na ay école yu fi ne xëy na jumtuwaayi yi euh, ak yi nga xamante ne war na fa am dëgg-dëgg ci matériel ak lépp des na bu baax a baax mais nag dañuy ñaaxaat état bi rek bu baax a baax ñu gën a dooleel science bi ndax réew moom développement ci foofu noonu la war a basé wu ci xam bu wér boobu noonu mu di science donc Seydina Omar loolu moom dañuy lancer un appel solennel ci ñëpp ku ko doon def xëy na mën nañ koo arrêté di doom yi mën nañ jàngee fii Sénégal amee fi xam-xam ci science ndax y a des établissements yoo xamante ne ñu ngi fi di ko jàngale bu wér y a des professeurs bien calés sur ce domaine aussi dans ce pays donc mën nañ yem fii di ko jàngee bu baax a baax yoo ko xam-xam nag baax na ndax xam-xam moom jar naa dem fii ba Chine pour wuti xam-xam ndax doy mais nag d'abord sa dëkk avant tout d'abord donc nañ ko saxal fii di ko gëstu fii bu baax a baax gëm ne fii am na xam-xam boobu am na ñu ko fi mën a jàngale aussi réew mi jàppal nañ ci ay matériel ay matériel bu baax a baax rawatina ci domaine science expérimentale bi ndax science basé wul ci yoo xamante ne ce sont des théories simplement non non science daa boole pratique ak théorie te théorie bi ah, pratique bi war ci ëpp doole lool ndax moom dafa doon xam-xam bu wér étude bu wér ak bien réfléchir lépp ci science la bokk kon nag Seydina Omar foofu la ñuy daanelee ci question boobu noonu. ci xam-xam ci xam boobu ga dugg rek si laa lay relance waat di la wa di la laaj ba xam ndax euh, njàngin bi ñuy bi ñuy jàngalee science si école primaire wala lycée ndax yenn saa yi dañuy gis ab benn xale mu dem ba BFEM ñu orienté ko est mu ne ma fa dem ndax ndax njàng mi science dafa dafa métti ñuy wax foofu noonu maanaam niñ ko jàngalee Sénégal moo métti wala xale yi si boppam xëy na ñoo am ñu bëggatul science ndax euh, yenn saa yi dañuy gis xale boo xam ne dañ koy orienté es mu ne daal wax dëgg daal du fa mën a dem ndax foofu dafa euh, daa mu dem el jàll fa am bagam moo gën loolu daal bëggoon nañoo euh, xam na moo ko waral waaw jërëjëf ci laaj boobu noonu xëy na loolu moom constat buñ def la boo xamante ne peut-être xaw na fee yàgg ndax même boo xoolee ci réew mi sax ni ci am bag S2 wala bac scientifique xaw naa jafe wala bac technique jafe na lool bariwul maanaam yeneen bag yi ñoo ëpp xëy na xam-xam moom dafa yaatu te xam-xam bépp baax muy littéraire bi muy scientifique bi te aussi ñi dañuy jaawale lu bëri ndax science moo bi lépp muy ci ndax science humaine am na te aussi loolu ci wàllum littéraire la dañ koy jàngee côté littéraire bi donc science dafa yaatu lool donc ci loolu noonu Seydina Omar loolu moom xëy na benn rumeur la xale yi di dégg naan S2 dafa métti wala S1 dafa wala T dafa fenn yombul fépp foo xamante ne nit ñi muy fa di fa sàkku xam-xam dafa jafe L bi ñi wax ni ay L2 L1 L prime yëpp dafa jafe ndax sàkku xam-xam moo yombul ñoo xamante ne même daara lañ nekk yombul ci ñoom donc xam-xam moom moo laaj benn sérieuxité ak nga bañ ko booleeg lenn aussi concentré wu ci moom dara dara dara jafe woo fi rawatina science bi ndax xam-xam boo xamante ne du lu ñuy làmb la boo xamee ko képp koo ko tegal wala nga woon ko ko maam da koy approuvé ndax lu wér lay doon doon loo xam te ne dañ koy lambatu donc à bas âge ñuy war a teel a orienté xale yi ci njàngum boobu noonu xamal leen ne mooy xam-xam bi wér ndax dafa englobé lépp maam ell yeeg lépp lépp baax njàng moom amul benn bu bon amul benn bu bon mais science bi da cee da cee rawati côté boobu noonu ndax dafa doon xam-xam bu degu ci théorie ak pratique ndax lépp li nga théorie da nga koy pratiquer nit ñi mun koo gis donc mu muñ buggee réew mi dëm daal dañuy jéem a orienté xale yi à bas ndax science da koy commencé def presque boo nekkee primaire commencé ci calcul calcul ya nga xamante ne moom ngay def élémentaire CM2 ay problème côté boobu noonu ndax foofu la basé wu science boo xoolee yi ci ëpp dafa yaa basé wu ci SVT ak aussi ak les mathématiques moom la ñuy woowee les sciences logiques science physique ba tey ñëw mu doon science expérimentale donc loolu dañ ca war a bàyyi xel bu baax a baax di jéem a orienté xale yi ci primaire bu ñu demee collège aussi ñu bëggal leen ko ñu nekk ci. di ci di ci gëstu bu baax. yaatal ci bu baax a baax. ci primaire boobu laay laay laay duggee posé waale soxna Fatick. léegi benn question mooy solution boo leen doon joxe tey solution pour euh, science bi xale yi gën koo jàng man lan nga leen di lan nga leen di xelal maanaam lan ngay digal man solution ngay jox moo xam état la moo xam ndaw ñi moo xam école yi ba science bi ñu gën koo promouvoir ci biir euh, ci biir école ak ci biir jeunesse bi. Euh, jërëjëf Seyna Omar ci laaj bi amatina solo bu baax a baax ñu lay jaajëfal bu baax a baax waaw comme solution bu ñu mëna joxee joxe jëmale ko ci ndaw ñi euh, mooy ñu gën a bàyyiwaat xel rek ndax nit moom euh, li nga xam ne moom nga bëgg danga ciy ñafe ba keroog yàlla di la ci may ndam. mais boo lâché rek ne dafa xaw a métti nga daal di bàyyi sa loxo bu boobaa yaa ngi yaa ngi génne sa bopp loo xam ne yow moom nga bëgg euh, bu ñu bu ñu systématiser wu rek ne ñun euh, secteur littéraire moom la ñu moom la ñuy kii parce que booy xool moo gën a yomb booy xool fenn yombul. Euh, muy science muy littéraire wala yëpp ñaar yëpp benn yombu ci yow yaay xool yow fan fan nga mën a defee say kii pour nga man faa euh, jëmale sa njëriñ. ni ko ni ko professeur di jàngale xale yi. Mm-hmm, mm-hmm. maanaam ku nekk euh, quatrième wala cinquième. Mm-hmm. nga koy jàngal yenn mat yi wala dara est-ce que nekkul loolu moo xaw a sax xale yi ba. ñoom foofu ñu commencé fa defar daw ba xam bu ñu demee seconde dañ koy dañ koy daw xeetu njàngin mi. lañ lañ war a xoolaat gën koo systématiser. waaw ndax booy xool professeurs yi maanaam euh, ñoom ci seen bopp joxatuñ ndaw li lu ñu soxla li jëmale ko ci science parce que ndaw mi day bëgg dara mais ni nga ko koy joxee day dem ba taayal ci ba moom du am mm, li nga xam ne mooy mooy lu mu ko mën a développer ci ci li nga xam ne mooy biiram. da ngay gis professeur boo xam ne da lay jox exercice après bàyyi ko noonu yow nga ñàkk koo bañ a def il fallait que mu contrôler ndax bu la ci tegoon choc rek ngir contrôler yow da ngay xam ne yow nii lii nga bëgg ñu ngi la ciy bàyyiloo xel ngir ëllëg nga mën cee réussir mais dañ lay bàyyi noonu dañoo xaw a lâché ci loolu ba mu ba ba mu ëpp doole kon nag euh, ñoom professeurs yi man moom laay jox kii parce que boo xool en séeré L2 ñi nga xam ne ñooy def mat euh, ñoom am zéro wala ñu am un sax. loolu du doon dara ci ñoom en terme bu ñuy def terminal wala yooyu noonu parce que ñoom dañuy foowee mat bi ne ne suñu série L lañ ne dañuy gën a favoriser suñu dominante yi ñu bàyyi leen kon loolu ci ba age ba lay doon maanaam ci fa leen koy jàngalee méthodologie bu ñu leen koy jàngalee moom moo dem ba météowul ak ñoom ci noonu ñu koy kiyee moo tax ñu dem ba bañ ko. kon ci ci méthode boobu sax laa laa laa ñëw soxna Khady. waaw ah, soxna Khady kon si loolu la ñuy duggee rek ñëw ci li nga xam ne moom mooy enseignement professionnel mooy njàng mi nga xam ne njàng mu kawe ñu laaj ko euh, sëñ Ousmane. maanaam njàng mi li ñuy wax enseignement professionnel ak enseignement général bi nga xam ne moom la Sénégal di jàng maanaam différence bi ñu am bëggoon bëggoon nañ koo xam enseignement général ak enseignement professionnel lu leen lu leen wutale. moom moom la waaw jërëjëf Seydina Omar euh, ñu dugg comme ci enseignement technique et la formation professionnelle parce que moom ak différence am nga ma laaj ak enseignement général xëy na mën nañ ne ñoom ñëpp ay branche xam-xam yoo xamante ne dafa am solo lool enseignement technique bi ak enseignement général bi mais xëy na mën nañoo jàpp ne l' enseignement technique et la formation professionnelle c' est celle qui implique le plus que l' enseignement général. c' est parce que enseignement technique la formation professionnelle dafa xamante ne nii daa basé wu ci ay pratique ak ay théorie théorie noonu ak pratique yoo xamante ne ay compétence yoo xamante ne ay métier la lay jox surtout rawatina fi jamono toll toll on est actuellement au vingt et unième siècle ñu xam ne réew mënut a développer sans l'enseignement technique et la formation professionnelle tout cela nag basé sur la science mais aussi avec l'accompagnement de l'enseignement général ndax aussi Euh, damay dégg lu bëri ñu naan comme enseignement technique la formation professionnelle nit ki peut-être boo ko defee comme doo am kàllaama de bien s'exprimer doo mën a wax et tout ça te alors que aussi loolu euh, nekkul lu am daanaka ndax boo xoolee Sénégal l'enseignement l'enseignement général moom lañ gën a farataal que l'enseignement technique la formation professionnelle alors que loolu teel bokk na ci la nga xamante ne peut-être mën na indi na des ambiguïtés yoo xamante ne peut-être terañoo na egg si fenn fi. ndax enseignement technique à la formation professionnelle nit ki bu ci nekkee a bas âge mu del cee orienté wu da nga am la façon de communiquer avec les gens parce que dañ la koy jàngal ba pare da nga ciy boole xam-xam bu wér boo xamante ne ni pratique la basé wu ak di théorie yoo xamante ne te théorie yooyu noonu ça dépend ci ci wax ndax faa nga wax pour expliquer au moins benn mécanisme boo réaliser nga expliquer nit ki wala benn euh, kii boo réaliser quelque chose doo réaliser doo xamante c'est palpable l'enseignement technique et la formation professionnelle c'est quelque chose doo xamante ne c'est palpable donc dañ dina la jàngal ñoo xamante ne la façon de communiquer avec les gens pour ko gën a comprendre mooy waxin bi da nga ko am savoir vivre da ko am savoir faire di nga ko am boo jaaree enseignement technique la formation professionnelle ci savoir faire boobu sëñ Ousmane ci savoir faire boobu nga xam rek maanaam soxna Khady avantage euh, enseignement professionnel maanaam njëriñ am nga xam ne mën na ko am mën na ko amal réew mi euh, ute ute ko enseignement général bi euh, lan la woon ci tënk. waaw am Seydina Omar ci laaj bi amante na solo bu baax a Euh, njëriñ lu ñu mën a tënk ci foofu mooy jëmale ko ci nga xam ne mooy formation bi ñu lay defal nga xam ne dañ lay tàggat ci dara euh, tàggal la ci ba nga mën ko ba mën a wéyal sa bopp nga mën a amal sa bopp li nga xam ne mooy indépendant mën a demal sa bopp mën a wéyal sa bopp ci lépp looy def mu rawatina boo ci paree ba am sa diplôme wala wala dem. feeti li nga xam ne mooy pratique jëmale ko ci structure yi nga xam ne foofu lañ la orienté maanaam indépendance la lay may daal pour que yow nga mën a demal sa bopp ba lépp loo gis rek mën nga koo bàyyi xel di ci jéem di dërlu looloo tax nag mu am solo bu baax kon dañ ciy gën a bàyyi xel bu baax ki nga xam ne mooy ndaw ñi ndax. ci ci ndaw ñooñ eh, Sénégal est-ce que am na am na assez d'école professionnelle yoo xam ne wax dëgg fa yàlla ndaw ñi bu ñu amee bac ñii bu ñu demee enseignement général ñii dañoo dem enseignement professionnel ba ñëpp ñëpp ñëpp nañ leen mën a intégré ñëpp nañ leen mën a orienté école professionnelle yi bëri na fi tamit est-ce que tasaaroo na si biir dëkk bi. waaw Seydina Omar comme ci laaj boobu euh, ba tey tasaaroo bi des na. ndax bu ñuy gis par benn benn la ñuy gis euh, booy xool ci région yu bëri daanaka sax am na yoo xam ne intégré wu fa ba tey te boo ne da ngaa yor éducation réew da nga ko war a li nga xam ne mooy décentralisé wu ko ci mboolem région yi nga xam ne moom moo ñu wër partout dans le Sénégal nga xam ne ndaw ñi bu ñu formé woo ci dara rek dinañ am ci luñ mu ñu mën a jàpp. il fa que nag ñu ñoom ñi nga xam ne ñooy nguur gi ñu bàyyiloo xel loolu xam ne ndaw ñi ñoom ñooy doon maguy ëllëg te ñoo mën a teew li nga xam ne ci réew mi dara ëllëg ñoom ñoo koy yore comme nag ñu former leen ci dara ñu xamal leen ko bu baax moom moo gën fuuf ñu nekk di leen jéggaani feneen di leen bàyyi ndax ndaw si ndaw dañoo gis ne suñu ndaw fi mu jamono toll nii amugu amatuñ baat bi nga xam ne moom lañ bëgg ngir jëmale ko ci suñu ñi nga xam ne ñoo ñu jiite. ndax buñ bëggee wax dara jëmale ci ñoom ñu wañ seeni loxo wala ñu am neneen ñu defee ne ak ñoom te loolu warul ndax buñ leen de formé ci dara ndaw loo formé ci dara mu yëngu ci. bu demee bu boobaa mën na demal boppam mën a am indépendant boppam di taxaw fenn di ñaan moroomam wala mu taxaw fenn keneen ak keneen kon nag loolu war nañ leen cee bàyyi xel bu baax formation boobu sans xaalis lañ ñëwee seen seen Ousmane rek mooy doon dernière question bi ndax euh, ndaw ñi bu leen formé euh, ci formation professionnelle bu pare ndax ñoom dinañ mën a entreprendre ndax ndaw ñi ñoo ngi jug dem di dem di entreprendre bañ di xaar euh, état bi ak nguur bi ci dara ku ne dem di di dugal boppam ñu xalaat ne loolu est-ce que gënul ñu formé la ba pare comme école ni mu bëree nii nga toog nga nga toog di xaar. waaw jërëjëf Seydina Omar ci formation boobu bi nga dugg xëy na loolu nag mën nañ ne xaw naa des lu bëri parce que boo ko boo xoolee mm, enseignement technique la formation professionnelle peut-être ça grâce à l'arrivée du président de la République Macky Sall au pouvoir xëy na am na lu mu ci def liggéey bu am solo ci wàllum enseignement technique la formation professionnelle. parce que euh, ay dëkk yu bëri te dina fa ay centres yoo xamante ne sont des centres ñuy former ay xale yi. ñoo xamante ne ci wàllum pratique boo xamante ne ça touche la vie quotidienne mun naañ dund adduna bi lay lay touché à chaque instant ndax daa doon xam-xam bu tegu ci loo xamante ne lu wér la ci nga mun a defal sa bopp dara ndax formation professionnelle loolu lay jëriñ nit ki dina mun a defal boppam boppam dara bu baax a baax mën naa xaar dara ci nguur gi. aussi li ci des rek mooy benn engagement ak entrepreneuriat boobu nga tudd mooy la nit ki mën a am confiance à soi. parce que boo amee ay compétence am xam-xam yoo xamante ne jàpp nga ne gii ce sont des xam yoo xamante ne yu wér la donc war ngaa mën a defar sa dëkk dara mooy lan nga bañ a xaar dara ci nguur gi avec say propre compétence mën ngaa bañ xaar aussi fonction publique parce que mën ngaa euh, mën ngaa impliqué wu bu baax a baax ci projet yi réew mi yëpp mu jëm ci formation boobu ndax te am ay formation côté bâtiment mooy génie civil le BTP euh, les travaux publics et tout ça côté bâtiment côté électricité côté plomberie côté maçonnerie ak lépp loo xamante ne xam-xam mi nit ñi dañ koy soxla à chaque instant donc loolu noonu euh, mu doon xam-xam bu am solo darul nit ki bu ko amee rek ñëpp dañ ko soxla incha allah mais xëy na recrutement bi au niveau fonction publique xaw naa néew lool xaw naa néew bu baax a baax ndax a des jeunes yoo xamante ne peut-être am nañ seen diplôme yu bëri ñee doon ay technicien supérieur ñee doon ay BT des ba ay technicien ñee doon aussi am ay seen mais ñëpp taxul taxul ñu intégré bu baax a baax te aussi amuñu ay moyens yoo xamante ne mën nañ ko di di di di ko di ko di ko jëf bu baax a baax mooy euh, xaw naa manqué bu baax a baax ci côté formation boobu noonu waxtu waxtu bi dañoo xaj ñu tënkaat nga xam sa dernier mot ñu ñu ñaanalante incha allah ba beneen waaw kon ñu waat di santaat bu baax a baax ñaa nga xamante ne ñoom lañ sekkaloon émission bi kenn ki sey na Omar Yaate di ko santaat ci question yi am na solo lool macha allah ak soxna Khady Ndiaye doon suñu naataango suñu mbokk taalibe aussi bu am solo xëy na ñu bëggoon rek tamit suñ dernier mot mooy daal ñu jëm a orienté jeunesse sénégalaise maanaam ndaw ñi bu baax a baax ci li ñu la ñuy wax la science surtout rawatina aussi dans l'enseignement technique et la formation professionnelle parce que ci moom lañ mën a basé wu ba ba doxal suñu réew mi bu baax a baax ci fépp nag surtout rawatina période biñ toll au vingtième vingt et unième siècle dominé par la technologie donc et la et l'information aussi te loolu lépp ça se base sur l' sur l'enseignement formation professionnelle donc ñooñu ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax di tuubalaat ñëpp rek mbokk taalibe yëpp xëy na foofu yemal kàddu yi daal di jaajëfal ñëpp rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf Ousmane ci kàddu gi xalaat gu sa dernier mot ñu tënk émission bi incha allah. ok jërëjëf Seydina Omar man sama dernier mot rek mooy gën a soññaan ndaw ñi rek ñu gën a bàyyiwaat lii nga xam ne mooy science waaw ah, ndax buñ ne science rek comme définition bi niñ leen ko indilee euh, bëri na xeetu xam-xam yoo xam ne ñu ngi ci kon ñu leen koy bàyyiloo xel ngeen bañ a topp li nga xam ne mooy littéraire ndax mënuñu la leen a wax ngeen bàyyi bi jël bee mën ngeen a boole ñaar yëpp. ngeen mën a dem ndax benn mënut a dem bàyyi sa moroom ñu ngi leen ciy soññu ngeen gën a góorgóorluwaat bu baax a baax xam ne science moom moo yoru réew ngeen gën cee bàyyi xel kon xam naa foofu la ñuy jot a wàjjee suñuy kàddu yi di leen tuubalaat bu baax rek lépp lu ñu fi wax loo xam ne lu jub la rek ndimbalu suñu borom la lépp nag lu fi dëng rek suñu di la xam ne dañ ñoo jox ndigal rek ngir ñu ñëw wéyale ko mais du xam-xam bu fi nekk ñu ngi leen koy tubalaat bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf soxna Khady jërëjëf sëñ Ousmane ñoo leen di sant bu baax a baax ci réflexion yu yaatu yu am solo yooyu nga xam ne indil ngeen ñu ko tey ci euh, guddig màggalu sëñ Cheikh Mbacke bi muy wax dëgg fa yàlla thème yoo xam ne euh, ndaw ñi buñ ko seetaanee dinañ si mën a jëriñu bu baax a baax te dinañ si mën di tënku ñu leen ñu leen ko waxee rek ñaari éléments yi xam ñoo toogoon fa élément wilaya wilaya lañ bokk daara bi nga xam ne moom mooy université Cheikh Anta Diop chef section Dakar kon ñoo leen di sant bu baax a baax leen jaaj leen wax ne ba beneen yoon incha allah